sëriñ Afia Niang sëriñ Afia Niang mi ngi gane àdduna ci atum 1879 ci dëkk bu ñuy wax Afia Jolof Afia Jolof gi maamam juñ doon wax sëriñ Ahmadou maxtar Niang moo ko goroon sanc ko sëriñ Ahmadou Makhtar Niang mi bari na sëriñ Afia yu ñuy wax ci mileem réew moom lañ ko duppee sëriñ Afia borom Jolof googu ñu tudd sëriñ Afia Niang ci ñi ko xamul ba tey doomu soxna Asta Mbàkke la soxna Asta Mbàkke doomu maam maaram la soxna Asta Mbàkke mi meññ sëriñ Afia mi ñu tudd sëriñ Afia Niang mii sëriñ ibrahima awa ñan mbàkke ak soxna mbàkke awa ñang ñoom ñett ñoo bokk maam maaram ak soxna awa ñang sëriñ aafiya ahmadu maxtaar ñang moomu nag lañ tudde sëriñ aafe mii sëriñ aafiya ñang feeñ jamono ci atum 1879 ci dëkk boobu di aafe jolof di dëkku maamam di doomu sëriñ du kumbaan mbàkke ñang ak ku ñuy wax soxna awa buso sëriñ abdu kumbaan mbàkke ñang mii doomu sëriñ ahmadu maxtar ñang la boroom aafe sëriñ ahmadu maxtar ñang mi neewoon naa leen doomu soxna assa mbàkke la sa Mbàkke doomu maam maaram la ba tey waajur sëriñ Afiye Ñang di sëriñ du Kumbaan Mbàkke Ñang doomu soxna Kumbaan Mbàkke la soxna Kumbaan Mbàkke doomu sëriñ Ahmadu soxna Busa Mbàkke la sëriñ Ahmadu soxna Busa Mbàkke doomu maam maaram la sëriñ Afiye Ñang ci wàllu waajuram wu góor lépp maam maaram la sëriñ Afiye Ñang waajuram wu jigéen mooy soxna Awa Buso soxna Awa Buso doomu sëriñ Buso be Buso la moom sëriñ Afiye Ñang am na nag ñum bokkal kii di soxna Awa Buso te bokkuñu njabootuñu sëriñ Abdou Kumbaan Mbàkke ñang ndax moom benn doom la ci soxna Awa Buso ak kii di sëriñ Abdou Kumbaan Mbàkke ñang waaye nag am na ñeneen ñu bokkal soxna Awa Buso te bokkuñu sëriñ Abdou Kumbaan Mbàkke ñan ñu ràññee ci cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ibnu sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim ak soxna Awa Buso soxna Mareema Kunta Mbàkke bintu Seexul Xaddiim ak soxna Awa Buso ak seen jigéen ba soxna Maam Faati Mbàkke bintu Seexul Xaddiim ak soxna Awa Buso kon ñett la bokkal soxna Awa Buso gaañu muy cheikh mamadul faadal mbàkke soxna mareemu kunta ak soxna maam faati mbàkke bintu seexul xaddiim lañ sëriñ aasee ñang xamul nag waajuram wi di sëriñ du kumbaan mbàkke ñang ndax bi mu feeñee jamono ba am lu tollook ñeenti weer jàpp juróom benn weer la waajuram wi di sëriñ du kumbaan mbàkke ñang génn àdduna rakku waajuram di sëriñ moor soxna kumbaan mbàkke ñang moo ko jàngal alxuraan ba mu géeju ci lool moo ko jàngal itim lii di xam-xam wala moo ko tàmbalee jàngal nag lii di xam-xam booba nag sëriñ dëkku waajuram boobu wala dëkku maamam boobu di Afe Jolof ndax sax ci dëkk boobu la feeñe jamono booba waajuram soxna Awa Buso mi ngi ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa ci loxoy Xaadim Rasuul sëriñ Afe ñang na wéy nag nekk nag ci loxoy rakku waajuram bi di sëriñ Moor soxna Kumbaan Mbàkke ñang ba niñ ko jébbale ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim kon nag ma wax leen sëriñ Afe ñang lu ko indi nag ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim ngir mu jaayante nekku mbàkke ñang la sëriñ abdu kumbaan mbàkke ñang mbiitum sëriñ afiye ñang mii doomam xamu ko ko rakku waajuram di sëriñ moor soxna kumbaan mbàkke ñang moo ko yar waaye waajuram wu jigéen wi di soxna awa busoo ginnaaw sëriñ abdu kumbaan mbàkke ñang mi ngi ci loxoy xaadimu rasuul bi sëriñ afiye ñang nag di jàng nag lii di alxuraanul karim ci loxoy rakku waajuram boobu di sëriñ moor soxna kumbaan mbàkke ñang ci afe jolof sëriñ tuubaa seexul xaddiim mi ngi ci géej gi muy ci atum 1895 ba ci atum 1902 ci atum 1902 nag la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisi nag ci géej gi ginnaaw bu mu ñibbisee ci géej gi nag laaj na kii di soxna awa buso mi meññ sëriñ aafiye ñang ana aafiye ñang soxna awa buso di ko xamal ne mi ngi ci loxoy rakku waajuram boobu di sëriñ moor soxna kumbaan mbàkke ñang sëriñ tubaa seexul xaddim sàkku woon na ci soxna awa buso ñu fexe ko indil sëriñ aafiye ñang ngir mu gis ko ginnaaw buñ ko indilee sëriñ aafiye ñang ba sëriñ aafiye ñang ziyaare ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk bi di daaru marnaan ndax Touba Seexul Xaddim mi ngi foofu ci ak ngan gum doon amal ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Touba Seexul Xaddim laaj na sëriñ Afee Ñang fan la sam njàng toll mu di ko wax ne mokkal na alxuraanul karim sëriñ Touba Seexul Xaddim di ko xamal ne sa waajur wa sëriñ Abdu Kumbaan mbake Ñang fekk na ma ci géej gi di ma xamal ne jébbal na ma la yaag sa rakk di sëriñ Seexu Ñang ndax keroog bi sëriñ Afee Ñang di jóge Afee Jolof di wuy si ku ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ci dëkk seexu ñang la àndaloon sëriñ tubaa seexul xadim di leen xamal ne seen waajur wa sëriñ abdu kumbaan mbàkke ñang fekk na ma ci géej gi di ma leen jébbal sëriñ tubaa seexul xadim saafonte woon nag sëriñ aafe ñang ginnaaw bi nag bàyyiwaat na ko mu delluwaat ci aafe jolof ngir wéyal am njàngam keroog bi muy tàgguk sëriñ aafe ñang sëriñ tubaa seexul xadim mi ngi ko doon xamal ne soo demee nag nga waaj baneen waaj ngir ñibbisi sooy ñibbisi nag foo ma dégg nag ma fa fekk ginnaaw na fi takk-takk ak mbaaxaan tubaab bi duggaat ci ñuy bor ko nag ci réew mi di gànnaar ci atum 1903 nag sëriñ Afia Ñang fekk na ko nag ci dëkk boobu di gànnaar ndax kat loolu la ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim waxoon mooy foo ma dégg nag ma fa fekk te booba Seexul Xaddim mi ngi gànnaar keroog bi sëriñ Afia Ñang di dem ci dëkk boobu di gànnaar moo ñuy wax sëriñ Abdou Ja Mbàkke Duyooli ñoo ànd ca yoon wa ba ni ñu eggee gànnaar bañ eggee gànnaar itam nag ci dëkk bii di xumaag lañ fekk ku baax sëriñ Tuubaa Seexul googu nag dañ faa toog ba ni fa sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi ko ci atum 1907 moom sëriñ abdu ja mbàkke duyooli sëriñ aafee ñang ak seen rakk ja sëriñ seexu ñang li ko dale ci atum 1904 ba atum 1907 ñu ngi ci réew moomu di gànnaar ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci atum 1907 la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim jóge ci réew moomu di gànnaar ñëwaat ci beneen résidence surveillée ci dëkk bii di ca yéen jolof ca yéen jolof googu itam sëriñ aafee ñang sëriñ abdu ja mbàkke duyooli ak kii di sëriñ seexu ñang ànd nañoo ku baax ki sëriñ sëriñ tubaa seexul xaddiim ci dëkk boobu di ca yéen jolof ca yéen jolof googu sëriñ aafee ñang jiite woon na fa kaamil ji nekkoon na fa itam jëwriñ ca yéen jolof googu itam la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim taxawale kër moom sëriñ aafee ñang sëriñ tubaa seexul xaddiim boole ko ku ñuy wax soxna aminta kandi mbàkke moom maam moor jaara mbàkke mi magu ku baax ki sëriñ tuba seexul xaddiim kon soxna aminta kandi mbàkke la sëriñ aafee ñang njëkk a dëkku ki sëriñ tubaa seexul xaddiim dëkk boobu di ginnaaw ca yéen jolof ci atum 1907 ba atum 1912 1912 nag sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyikoo na ca yéen jolof demaat ci beneen résidence surveillée ci dëkk bii di njaareem njaareem googu sëriñ aafee ñang àndoon na fa ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba tax na njaareem googu sax la jotee ngërëmam ci atum 1913 ginnaaw bu mu jotee ngërëmam ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moom sëriñ aafee ñan dafa ñëw nag nekk ci loxoy nijaayam sëriñ aafee busu ci dëkk bii di daaru marnaan muy fi tolloo garage Dakar ni mu tàmbalee bindal na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ay kaamili alxuraan ba tax na bindal na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom sëriñ afiye ñan ci lu tolloog fanweeri kaamili alxuraan ginnaaw daaru marnaan googu moom sëriñ afiye ñang sancaatoon na fi tolloog gaar bu mag waaye foofu nag bi mu fi nekk ci ay jafe-jafey neen la fi nekkoon at mu jot daana lakkle ba tax na juróom wa soxna awa buso demoon ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko xamal ne sëriñ afiye ginnaaw bu mu jotee ngërëmam ak léegi jógee ci yow ak moom daal dafa bari ay jafe-jafe àdduna saa su këram mi ngi lakk boole ko lakk gi ko mujjee dal sax dund ba dafa tàkkaale sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di xamal soxna Awa Buso tuub ko ab dund du tàkk xanaa kay lam doon jëfandikoo kay la sawara wa yóbbaale waaye ab dund du tàkk ndax dund suñu boroom moo ko yor keroog ci jataay ba ku baax sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mi ngi doon xamal soxna Awa Buso di ko wax na bu demee mu wax aafiye ñan mu tuxoo foofu te ñëw Tuubaa sanc fi su boobaa këram duutul genn gent te jafe-jafe yooyu mu am yépp nag dana teggeeku ci la nag sëriñ Afia Niang bàyyi tolloo woon ak gaar bu mag ñëw nag dëkk si fi tolloo gaar bu ndaw kër gi nag mi ngi tolloo woon ak kër sëriñ Jiili Mbàkke moom ma mu dul Faadal Mbàkke jàpp kër sëriñ Balla Joor ci diggante boobu la sëriñ Afia Niang dëkkoon diirum nag li sëriñ Afia Niang taxawal kër waajuram soxna Awa Buso ci loxoom la nekk ba tax na soxna Awa Buso daana wax ne sëriñ Afia Niang moom mooy doomam waaye Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag mooy sëriñam ci kër googu amoon sax ci gaar bu ndaw ginnaaw bu mu fi tuxosee ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim soxna awa buso mi leen meññ mook cheikh mamadul faadal mbàkke ak soxna mariama kunta ak soxna maam mbàkke ci kër googu sax la soxna awa buso génnee àdduna ci atu 1937 ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi tubaa googu nag la wéy nekk nag ba ni fi sëriñ tubaa seexul xadim bàyyi ko ci atu 1927 moom sëriñ afiye ñang ci kër googu mu amoon ci 1927 ñu tegaat ci fukki at ak benn muy atum 1937 waajuram soxna awa buso génn àdduna ginnaaw bi nag la fi bàyyi ko Touba dem nag sanc ci penk Touba dëkk bu ñuy wax Nasru di bay di jàng ak di jàngale sëriñ Afia ñang nag sancoon na luñ tuddee ay dëkk wala ay kër yu wuutee wuutee ci ay dëkkin ndax ginnaaw bu mu jotee ngërëmam ci xaadim rasul ci atum 1913 ci kër nijaayam ci daaru marnaan la njëkk a dëkk ginnaaw bi nag jóge na foofu ñëw sanc fi tolloo gaar ñëw sanc fi ñu tudde gent bi wala gent ba ci fi tolloo gaar bu ndaw foofu sax la waajuroom wa génne àdduna di soxna awa buso ginnaaw foofu itam sancaat na fii mu génnee àdduna di ci gaar bu ndaw di kër gi xalifaam bi nekk di sëriñ muudu maamun ñang ak benn dëkk bi mu sanc di nasru mu nekk ci penku tuubaa ba tey ci diggante sëriñ aafiye ñang ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu waajuroom wow génnee àdduna di sëriñ moor soxna kumbaan mbàkke ñang sëriñ aafiye ñang demul woon jolof jaale ji waajuroom woow ndax waajuroom woow jàngal alxuraan te moo nekkoon rakku waajuram te moom moo ko yar ba mu toll ni mu tollu coow li nag dafa bari woon lool ñu bari nag di laaj lan moo tax nag sëriñ Afia Niang ñëwul nag jaale si waajuram wow di sëriñ Mor Soxna Kumbaan Mbàkke Niang mi kenn ku nekk commentaire ba nga ci doon def ci jëf jooju sëriñ Afia Niang def muy ñàkk a si waajuram wow sëriñ Mor Roqaya Bousso di mbokkam di xaritam moo bindoon ab ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim génn na àdduna waaye sëriñ Afia afiya ñang dafa bëggoon a dem jaale ji ko ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddim jotee ca këyit woowa bindaatoon na ci ginnaaw këyit wa di wax sëriñ afiya ñang heure boo jotee ci sama mbind lépp loo jàppoon ba ko te wuy si ma bi mu egsee njaareem ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim laaj na sëriñ afiya ñang ba xam moom moo bindoon lettre bi waaw wala déet afiya ñang di ko wax ne sëriñ moo roq ya busoo moo ko bindoon sëriñ tubaa seexul xaddim yooyu soo nekkoon jolof sa loxo yi dana mel nii mu mel sëriñ afe ñang di wax sëriñ bi déedéet ndax su ma nekkoon afe maa ngay liggéey boole koog nekk ca tool ya te kon sama loxo yi day wow koŋ boole koog dëgër sëriñ bi di wax sëriñ afe ñang fa nga toogoon ba sa loxo ya mel nii toog fa ca jataay boobu nag ku baax ki joxoon na sëriñ afe ñang suuf di ko wax na boo demee na nga yónnee ko jolof te def ko ci sa barabu waajur boobu bu buñ ko fa defee waxuma la moom waaye ñépp ñu mbokkal tëdd foofu danañ xam ne doomam ànd naa ku mata àndal boobu la ko sëriñ Touba Seexul Xaddim jox nag ay këyit di ko wax ne demal mbusoobe mbusoobe nag mi ngi woon foofu ci njaareem di ko wax ne boo demee nga toog fa te bindal ma kaamilub alxuraan ginnaaw kaamil boobu mu bindal ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim Seexul Xaddim boole woon na ko soxna suñuy wax soxna Awa Mareema Buso ngir sëriñ Afia Ñang da kookoo soxna Awa Mareema Buso moomu moom meññ soxna Say Ñang bintu sëriñ Afia Ñang ak soxna Aminta Ñang bintu sëriñ Afia Ñang ginnaaw foofu sëriñ Afia Ñang jaar ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul seexul xaddim ci digganteem ak aafe sëriñ aafe ñang daana wax ne bu fekkoon ne aafe féetiwul penk mën naa bañ a xamati fu aafe féete ba tey diggante sëriñ aafe ñang ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim mas na woo soxna awa buso ak seex dul faadal mbàkke ak sëriñ aafe ñang di leen wax ne yéen ñett ñi maa leen warlul ajjana faboon na suuf jox leen wala faboon na suuf teg ko ci loxoy sëriñ aafe ñang keroog biñ génne ca jataay ba seex mamadul faadal mbàkke sëriñ aafe ñang joxoon na lenn ca suuf sa bi soxna awa sa génnee àdduna moom lañ ko dencaale leneen la nag bi sëriñ aafiya ñang génnee àdduna itam moom lañ ko dencaale kon sëriñ aafiya ñang ba tey itam jaar na fii ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim ba tey sëriñ aafiya ñang am na tawféexi ci atum 1927 biñ indee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim ci dëkk bu sell bii di tuubaa di ko jébbal boroomam sëriñ aafiya ñang fekkee na ko ba tey ci tawféexi sëriñ aafiya ñang sëriñ tubaa seexul xadiim biñ ko jébbalee boroomam ci dëkk bu sell bii di tuubaa Touba fi mu nekkoon ab baraag moo fi nekkoon ba na wax ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim borom baraag bi baraag boobu ginnaaw bu jumaa ji eggee bañ fiy jëlee nag lii di seng ba sëriñ Afiyee Ñang lañ ko joxoon addiya ba tax na soo demee ci këram gii di gaar bu ndaw lenn lu bokkoon ca baraag ba ma nga ba tey ci jëfi sëriñ Afiyee Ñang lii di daaray kaamiliti moo ko njëkk a taxawal ci Touba ci ginnaaw bu fi ku baax ki sëriñ Touba seexul mu bàyyi ko ba tey liggéey sëriñ Afiyee Ñang ñu man cee ràññee barabub ku baax baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom itam yoroon na ko ci atum 1948 ba atum 1964 mu wuutu nag ku ñuy wax sëriñ moor soxna jóob sëriñ moor soxna jóob moo njëkk a yor barabu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci ndigalul cheikh mamadul mustapha mbàkke sëriñ moor soxna jóob mi itam nag la sëriñ tubaa seexul xaddiim joxoon kërug tuubaa gi mu nekk fi nekkee fi li ñu tuddee ab bëkk néeg ginnaaw ñu fi indee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim fekkoon sëriñ moor soxna jóob yoroon kër gi nekk bëkk néeg bi yi wéele woon nag mu yoraale barab bi ndax seexul xaddiim moo ko fi tegoon ginnaaw bu sëriñ moor na jóob nag demee ba ay atam mayatu ko ko la cheikh mamadul faadal mbàkke jël sëriñ aafiye ñang nag jox ko barab bi ci atu 1948 ba ni mu fi bàyyi ko ci atu 1964 ginnaaw sëriñ aafiye ñang nag lañ ko jébbal sëriñ njoogu mbàkke barab boobu nag ginnaaw buñ ko ko jébbalee ci atum 1948 la tuxoo nag foofu ñu tuddee gent bi nekkoon ci gaar bu ndaw ñëw na kër gi mu dëkke wala kër gi njabootam gi dëkke bi sëriñ Moodu Maamun Ñang ci gaar bu ndaw ba tey nekk fii ngir gën a jege barab bi doon nañ sàkku sax ci moom mu dëkk fu gën a jege foofu waaye waruma ma gum amoon ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ak saa bu ma saa gis lenn lu jege ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim rongooñam tuuru loolu moom moo taxoon mu mujj dëkk foofu kon ci atu 1948 la jóge foofu ñu tudde gent bi ñëw foofu mu dëkkee ci kër googu sax la génne àdduna di kër sëriñ Moodu du Ñang nekkoon baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim am na bis ci njaareem ku baax ki tubaa seexul xaddim dajale woon ci ñenn ñu fa nekkoon ca mbooloo moomee fa nekkoon ràññee woon nañ ci ku ñuy wax sëriñ moor roqaya buso nekkoon wóllërëb sëriñ aafiye ñang ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di leen xamal ne suñ borom de dafa am lu ma santoon naa dem ca néeg ba ubbi nag lenn ci gaal yi jël fa benn ci kaamili kaamil boobu nag nanga ca bind lii ma lay waaj a wax kaamil boobee mu jëloon nag kaamilub sëriñ aafiye ñang la ndax bokk ci kaamil kaamil yi ko sëriñ afiya ñang doon bindal benn ca kaamil ya la suñ borom santoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul mu bind ko nag mooy ñaanal na barke kooku bind kaamil bi nangul na itam ak muritam kooku bind kaamil bi te dara nag taxul mu bind ko lu dul sama jëmm ji danaa ko ca defal ajjana nag te ajjana jama koy defal nag mooy ajjana ji nga xam ne nii ñi ragal yàlla ñoom ñoo fay dëkke danañ ko ci defal nag ak mucc mucc gën a néew na lool doomu aadama am ko lépp baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ngir mu fob lenn ci kaamil yiñ ko bindaloon ci njaareem te bind ci nag lii mu koy waaj a sant te nakate nag ci kaamil yooyu kaamilu sëriñ aafiye ñang la ci jataay boobu sëriñ tubaa seexul xaddiim wowoon leen ci mag ñi nag la leen doon wax kiimaan googu suñ boroom defoon ci kaamilu sëriñ aafiye ñang boobu te jataay ba nag la sëriñ tubaa seexul xaddiim di xamal mag ña ne bi mu bindee lool ba pare la doog a xoolaat nag ne kaamil bii ci kaamil yi ko sëriñ aafiye ñang bindaloon ci la bokk ñu teewlu mbind ma azim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa baraka barakatan baada salatin wa wahaba li muridi allazi kataba li zalika almushaf alsharif li wasilay taala duxul aljannati allati wa'ida almutaquun maa najatin ma lam yanju minhu kasirin min ibadillahi tabaraka wa taala mima yasu kulla shaxsin wa yaduru kulla shaxsin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu yaxtasu bi rahmati man yashaau wala su fadlin asim ba tey diggante sëriñ Afia Ñang ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim am na benn bis rakkam xaritam Cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke ibnu sëriñ Touba Seexul Xadim yoroon ak xasida di ko jàng toog ak sëriñ Afia Ñang ci benn jataay bi Cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke ibnu sëriñ Touba Seexul Xadim doon waxtaan ak sëriñ Afia Ñang ginnaaw bi nag la ko wax ne sëriñ Afia suñu waaji maak yow wala suñu waaji di xaadimu rasuul dama bëggoon ci sama xasida gii ma yor bu doon ñaari baat sax mu bindal ma ko ci ma di ci barkeelu sëriñ Afia Ñang jëloon na xasida Cheikh Mouhamadul Bachir go googu yor ko di ci jàng ginnaaw bu mu demee ci jataay bu ku baax ki nekk sëriñ Afia Ñang nag yoroon na xasida ga ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag doon na sàkku ci sëriñ Afia Ñang li mu yor lan la sëriñ Afia Ñang di ko wax ne ak xasida la waaye Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke sa moom de moo ko moom mi ngi doon sàkku na nga bindal ko ci neem ñaari way la sax yu mën a barkeeloo ci sa loxo bu tedd bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim jëloon na xasida ga nag doon ko jàng ba yéemu ca lool ndax ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim daana daa jàng ci njaareem suñ masaa jàng lenn ci xasida yi bu ko seexul xaddim masaa dégg daana ca daanu bay wax ne kooku de mën naa bind ginnaaw bi nag la koy mag ñi di wax ne monte lépp yawa kon xasida moom daana yëngal ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag mujj na bindal na ñaari bayit yooyu ci xasida ak cheikh mamadul basiir googu lam ca doon sàkku sëriñ tubaa seexul xaddim nag sàkkuwaat na woon ci sëriñ aafee ñag moom itam na dem wutu xasida ñëw mu bindal ko comme lu mel ne lam bindal cheikh mamadul basiir bi sëriñ aafee ñag indee ak xasidaam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bindal wéral na ko la sëriñ tubaa seexul xaddim nag bind ci xasid ak sëriñ aafiye ñang mooy ginnaaw bu mu jullee ci ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam mi ngi sàkku nag ci ngën gi mbindéef wala buur bi tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan nag nga ñaanal ki moom xasida gi suñ borom defal ko barke ba tey maa ngi ciy ñaan sëg bëgg di ak bëggam ca mbind moomu ba tey sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi wéy nag di ñaan ngën gi mbindéef di ko wax ne sax li ma ñaanal sëriñ aafiye ñang sax duma ci yem maa ngi ñaan nga defal ko mbooleem mbindéef yépp Sénégal na dëppook sa bëgg te jataay booba sax ba tey sëriñ tubaa seexul xaddim mujj ñu indi ba tax na ñu baree bari sëriñ tubaa seexul xaddim mujjoon na bindaat ci seeni xasida te ci barkeb Cheikh ndax moo ko sàkk woon ci sëriñ Afia Ñang ngir mu waxal ko ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba seexul xaddim mujj ko defal mag ñëpp mu Mamadul Basiir ak sëriñ Afia yàlla na leen yàlla fay ca loola ñu teewlu nag mbind ma seexul xaddim bindoon ci xasida sëriñ Afia Afia Niang asbillahi min saalin bismillahi rahmaani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa habli saahibi haza alxirtaasi fiihi wa fi xayrihi barakatan wa hab lahu xubbaka wa xubba ma tuxibu lahu xubbahu wa hab li jamii almutaalaqiina kaatibi wal mutaalliqaati misla salik yooyu yëpp nag sëriñ Afia Niang am na ko ci digganteem ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim mu wéy nag desandi ci loxoy ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ba ni sëriñ Touba Seexul Xaddiim génnee àdduna ci atum 1927 mu fab léppam nag jébbal ki fi nekkal Xaadim Rasuul di Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke waaye nag féeteeg rakkam Cheikh Mamadul Fadal Mbacke ibnu sëriñ Touba Seexul Xaddiim ndax ñoo bokk soxna Awa Bousso mu nekk nag ku bëgg Xaadim Rasuul bëggaale mbooleem ku taq ci Xaadim Rasuul ba tax na ñu baree bari ci njabootu xaadim rasuul gi sëriñ afiya ñang na leen doom ko amoon ak wëllëre la ak cofeel ci cheikh mamadul moustapha mbàkke mi njëkk a wuutu xaadim rasuul digganteem ak cheikh moom kenn du ko laam-laamee ndax ñoo bokk soxna awa buso te léppam la woon ba tax na bari na sax ci njabootu cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ afiya ñang moo joxe seenu tur ñu ràññee ci soxna ummi mbàkke bu madina ture sëriñ afiya ñang moo ko tuddee soxna ummi bintu xaadim rasuul rakkam itam di cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na ko doom ndax sëriñ afiya mbàkke Mbàkke mi ngi fi te moom lañ ko duppee Cheikh la Lamine Baara Mbàkke itam naka noonu sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim wala réew sëriñ Afiye ñang la woon ba tax na séq nañ lu baree baree bari bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nekkee njaareem bi mu génne àdduna ci atum 1964 moom sëriñ Afiye ñang Cheikh Mouhamadoul Bachir moo ko taxawu moo ko jullee ndax Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbàkke mi rakkam xamoon na seen diggante Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke moomu sax naw gum nawoon sëriñ Afiye na bi mu toogee général des Mourides mu jël ki ko wuutu di sëriñ Modou Mamoun Niang defoon ko secrétaire généralam ba tax na bi sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké tabaxee kër mag moom yi sëriñ du Mamoun Niang bokkoon na ci ñi seede ne Cheikh Abdou Lahad moomu ko waaye ku fi toogal xaadim rasul yaa ko moom Cheikh Abdou Khader Mbacké ci gàttal daal mbooleem njabootu xaadim rasul gi moo xam góor wala jigéen sëriñ Afia Niang séqoon naag ñoom ba ci ki ñu tuddee caatum xaadim rasul di Cheikh Mourtada Mbacké Tuubaa Seexul Xaddiim amul kenn kum ci amoon na xaar ma yàlla sëriñ moo roqee bu sa séqoon nañ lu bari ndax ñoo nekk ndowoon gànnaar sëriñ Abdu Jëdd Yooli Mbàkke ñoo ànd dem gànnaar mook rakkam sëriñ Seexu Ñaŋ maam sëriñ Sill bu Turee Ndula bi sëriñ Afia Ñaŋ taxawalee liñ tudde daaray kaamil ci Tuubaa xasida yu baree baree bari maam sëriñ Sill moo ko daa bind daa ko ko indil sëriñ Afia Mbàkke ibnu maam Mor Anta Sali Mbàkke wóola réew sëriñ Afia Ñaŋ la woon ndax ñoom ñaar ñoo bokk leen tudde muy borom afe Modou Farmata Mbàkke ibnu sëriñ Afiye Mbàkke na kóllëre gi ba taxoon na sëriñ Afiye ñang foboon na doomu sëriñ Modou Farmata Mbàkke bi sëriñ Abdul Wudoon Mbàkke jébbal ko doomam muy soxna Ami ñan moo meññi ki toog toogaayu sëriñ Abdul Wudoon Mbàkke di sëriñ Modou Ami ak ñeneen ak ñeneen xam naa ku bëgg lim ko sëriñ Afiye ñang daa séqal daa juum ci gàttal daal bépp mag mum séqaloon ëttub xaadim rasuul bi amoonte woon naag yow jàmm ak salaam ndax loolu rek la leen fi xaadim rasuul bàyyeeloon mu nekk na ko fonk na fu mu masaa gis fotow xaadim rasuul rongoñam tuuru fonk googu mu fonkoon xaadim rasuul loolu itam tax na nangul woon a dëkk fu jege jumaa ji ndax saa su ne bu gisee dara lu jege xaadim rasuul rongoñam tuuru kon ko amoon cofeel la ci xaadim rasuul waxtaanu xaadim rasuul itam fu mu ko masaa dégg rongoñam tuuru ndax xam gum xamoon xaadim rasuul ndax yàgg gu ñu yàgg li ko dalee gànnaar ca yéen jolof ba njaaréem te am na tawféex itam fekke bis bu mujjub xaadim rasuul kon sëriñ afiye yàlla nañu sa barke ci sa darajey tur aafiya doomu soxna awa buso ba magu ma cheikh mamadul faadal ba sëriñ aafiya ñang mii génn àdduna ci feebar bu ko tëral bisub gaawu benn fan ci weeru gàmmu ci atum 1384 ci gàddaay gi gaawu benn fan ci weeru gàmmu ci atum 1384 ci gàddaay gi dëppoo samedi 11 juillet 1964 samedi 11 juillet 1964 ci kër gi ko rakkam ma cheikh dul faadal mbàkke ci atum 1948 ginnaaw bu mu ko joxee barab bi kër googu moo tolloo kër gi xalifaam bi nekk nii di kër sëriñ moodu maamun ñang ci gaar bu ndaw ci biir kër googu la sëriñ afiye ñang génne àdduna rakkam cheikh dul faadal mbàkke nekkoon xalifa général des mourides moo sàkku ci xaritam ma mu dul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim ngir mu ñu taxawu sëriñ afiye ñang jullee ko ñu gunge ko ba ca armeer kon lépp sëriñ afiye ñang ci ginnaaw bu mu génnee àdduna cheikh mamadul bachir la ndax kóllëre gu yàgg ñoom ñaar ay xalifaam nag nii la tëdd sëriñ moodu maamun ñang moo ko wuutu ci la 11 juillet 1964 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Afia ñan bi ak mbooleem ay rakkam ak ñim séqal sëriñ Afia Ñang gépp te suñ borom def sutura ak xéewal ci kër googu ci barkeb Afia sëriñ Afia ñan nag amul duñu tuddee ak màggal waaye nag njabootu sëriñ Afia Ñang danañ màggal bisub rakkam bii di cheikh Mamadul Faadal Mbàkke di Kazu Rajab waaye lu dul loolu sëriñ Afia Ñang amul fàttaliku ci liñ tudde ak màggal ñuy ñaanal sëriñ Moodu Maamun ñan ak mbooleem njabootu sëriñ Afiye ñan gi moo xam muy góor ak jigéen mag ak ndaw ak mbooleem sëtu sëriñ Afiye ñan ñi ak nuñ ci mën a sëtoo ak képp ku sopp sëriñ Afiye ñan ñu ngi lay ñaanal suñ boroom guddal saw fan te wéral say cër te def sutura ak barke ci googu kër ñuy ñaan ci ka soxna aw bu sa daa wax ne moom mooy doomam di sëriñ Afiye ñan yàlla na suñ borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bi jeey